l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal 24 point net waaw bon asalaamaaleykum maa ngi tudd euh, Babacar Gningue euh, je suis jeune entrepreneur sénégalais te nag euh, yàlla def na man maa gagné li nga xam ne ni moom mooy euh, concours bi nga xam ne nii moom mooy picc African Roadshow bi nga xam ne nii euh, si Coupe Africa la fii si Sénégal man maa ko gagné donc maa ngi vraiment remercier ñëpp ñi nga xam ne nii jàpp nañ ci ñoom Abdoulaye ñoom Régis ñoom Tabara et tout yi nga xam ne jàpp donc man machine bi ma gagné projet bi ma gañee benn machine la boo xam ne machine bi dafay lay permettre nga am courant sa biir kër. wala nga am ko si sa entreprise wala nga am ko si dëkk euh, machine bi euh, daf lay permettre dootoo fayati courant doo fay. Euh, Euh, dootoo fay courant te machine bi du consommer ni ndox ni euh, gasoil ni pétrole ni énergie solaire ni dara benn machine bu autonome la boo xam ne da koy dugal si bu la neexee tëj ko sa randal mu lay jox courant à 100 pour cent te mun na dund lu mat ëpp 20 ans te du amu sa am benn problème donc euh, projet boobu laa la présenté yàlla def tey ma ma ma gañe ko maa ngi remercier ñëpp di sant yàlla bu baax a baax di remercier ñi seetaan waa ndaw Sénégal si mu leen di woo mooy nañu gëm seen bopp parce que man mii di wax ak yéen jànguma j'ai pas fait les études et aujourd'hui présenté naa benn projet boo xam ne tey euh, boole nañ ma si euh, course bi nga xam ne nii man ak ñu jàng ba yor seen ay diplôme ñu ñoo ko bëggoon donc kon nekkul ne nekkul ne jàngaloo rek euh, waroo réussir donc damay woo ñëpp ñu ñu ñu gëm seen bopp taxawal ay projet parce que dafa am lu ma yàgg di wax mooy la meilleure façon de trouver un emploi c'est de la créer soi et y a pas pour soi-même donc euh, si loolu daal laay woo jeunesse Sénégal euh, di leen wax ne actuellement adduna bi compétition la ci côté technologie bi nañu génn li nekk seen bopp yi ñu utiliser ko mu jox leen dara ñu réaliser ko bokk ci concours international yi aussi yàlla mën na leen dimbale ñu indi dara suñu réew sunugal 24 point net